et je suis le mandataire de Anta Babacar Ngom du pour la relève citoyenne. retenir à l'issue de ce contrôle de parrainage? Ce qu'on peut retenir à l'issue de ce du contrôle de parrainage, le parrainage de Anta Babacar Nous avons dépassé le minimum requis et nous avons et 10 régions on été validés. C'est-à-dire, sur les 14 régions, nous, on avait misé sur 10. Et ces 10 ont totalement été validés. Donc, nous remercions les Sénégalais et disons Alhamdulillah. waaw liñ mën a jàpp rek mooy wax alhamdulilah di sant yàlla di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa di sant tamit suñu ay waajur mais surtout di sant sénégalais yi nga xam ne nii ñoom ñoo wóolu Anta ba danga koo parrainé. alors ñaata waaw am nañu quarante cinq mille deux cent trente huit sachant que le minimum bi nga xam ne nii moom la ñuy laajte pour nga jàll mooy quarante quatre mille deux cent trente et ñun si fukki région la ñu misé woon te fukki région yi ñu misé woon yëpp yàlla def na si jàmm. sotti ci ndox bu sedd ba fukki région yëpp yi ñu dugaloon yooyu la ñu validé kon ñu ngi ciy sant bu baax di ci gërëm yéen tamit journalistes yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndaxte ku leen gis fi ngeen di yendu suba ba ngoon donc seen liggéey metti na trop yéen a ngi def lu mucc ay pour lan informer les sénégalais juste et vrai kon yéen amoon nañ cant ak ngërëm. est-ce euh, waaw loolu li ma ciy tontu maanaam nit ku nekk li nga def nga mën a xam ndax Anta déjà boo xoolee suñu tur mouvement bi alternative pour la relève citoyenne donc ça voudrait diir que dafa am ay valeurs citoyennes yoo xam ne nii moom la ñuy cultiver ci kaw valeur yooyu du ñu wax li nga xam ne nii moom moo ñu wóor duñ dugg si loo xam ne nii wóoruñu mais li ñu def lañ xam. mooy Anta ñëpp gis nañ ko sur le terrain donc lii du surprise merci. kon nekkoon euh, léegi juste ma présente leen tonton Maguette Wade voilà c'est le chef politique de notre mouvement moom tamit depuis le début liggéey bu mucc ayib la ci def. franchement ñoom teewul teewul Sene Info International Sene ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ay xibaar yu wér